jërëjëf euh, mbokki internet yi jërëjëf mbokki amateur yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel waxoon naa leen ku bërki dem sama jàkkaarloo ak Gaston Xaali ngi ne woon naa leen buur le retour malgré corona 19 oblige tey nag ñu del soit ak yéen ci beneen émission làmb waaye seet si xale bu spécial boo xam ni li ko waroon ci làmb ba tey mu ngi koy def xale bu am 11 victoire am six défaites boo ko totalisé mën nañ ni xaw naa bëri ci presque dix huit ñu daan ko woy le puma di nongolo diggante nongolo ak ñaq jariñu fii leen fekk defe naa bokk na ci combat am yi gën a neex yoo xamante ni que mon làmb dootu ko fàtte boobu ba tey yàlla def mu dugg ci benn kalaaf am ci ay tolof tolof gisaatuñu ndongo déggatuñu ko tey nag man buur ma ni naa ko jeexi ba xool xale bi ci ban état de forme la nekk xale bi ci ban état de d'esprit la nekk. wala xale bi est-ce que taxawaat na pour jëlaat place am ci làmb ji tey nag ñëw fii ci parcelle fekk ko ci salle bi muy entraîné bëgg a waxtaan ak moom abordé moom ay quelques points euh, ci carrière am waaye notamment ci làmb Ndongo Lo maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum ginnaaw ma sant yàlla julli si bi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu waa Grand Médine gi yëpp di delluwaat di nuyu waa Grand Médine di delluwaat di nuyu waa Grand Médine di nuyu waa parcelle. ëpp 26 surtout waa 22 ak waa 18 ak waa 21. di nuyu képp ki nga xamante rek mu supporté Ndongo mu ngi bëggee Ndongo di delluwaat di nuyu waa gramine di nuyu sama mama Fatim di la nuyu di nuyu sa cameraman yi di nuyu sama coach maam sax ak sama xam-xam biram yaay tey Ndongo bu ñu doon retrace waat euh, li nga xamante ne que moom mooy carrière am Ndongo mën nga ma dellu si ci Claf yi parce dafa mel ni que Claf yi moo euh, maanaam moo jur chamboulement bi yëpp tey. <coughs> waaw xam nga Claf yi moom xam nga wax naati wax si waat si waxaat si waxaat si man dépassé naa foofu parce que xam nga parce que ñun lu passé passé nañ ko dañuy xool suñu kanam kalaa fa dugg nañ si juum nañ def nañ erreur mais yàlla mooy dogal loolu yàlla mooy dogal ne ndongo du fa daan kenn xam nga mais sant yàlla kalaf boobu nag moo taxaat ñu fas jom xam nga mais est bi nga ciy dugg say conseil d'accord d'accord kalaf mu ngi suñu ginnaaw mais des fois aussi mbër dina am tey dañ fi ñëw pour waxtaan ak sa carrière te carrière bi li ci gën a marquant mooy kalaf bi. bi nga ciy dugg ndongo jàppoon na ne que amoon na ci place wala staffam d'accord noonu ci. waaw Kalafi ba muy taxaw fekk ma fi dama voyagé woon xam nga sama ginnaaw lañ ma woo nga ne ma dañuy tëgg Kalafi mais Kalafi sax man la woon ak Kewal ak Efra Rouge ak Kulifay 2 mais ah noonu demee mais Kulifay 2 daan naa ko ñun ah tëgg dañ kalaaf ensuite. ci la togal une semaine xam nga gaay yi ma dama ma claf bi change nañ ko yow la général pap mbay ak ñak jarign ma mais pourquoi aussi nga nang won ko parce que ñom defe na contrat bi signé won ak yow moy claf bu ñëk bi donc claf bobu mën ni euh, <laughs> ben combat nga ci bëré donc mënuñu tëj claf boobu ubbi beneen claf boo xam ça sa consentement léegi xam nga ñom nit ki moom xam nga ko jité la par diko fakassal exemple la parce que làmb moo demee noonu nit ki boo jëlee njiit jox ko na nga jël lépp jox ko te yaa sa carrière moo gën a am importance loolu aussi. waaw mais am nga njiit moom njiit la rek te tout le temps mag warul di gaaw a juum ndax bu juumee lu yàqu day bari te du neex a defaraat xale bu juum sax mën nañu ko jubbanti taf-taf mag bu juumee mën na ko jubbante wala boo ko jubbante tamit lu yàqu day bari loolu la quoi. mais daal claf moom jur na loo xam ne sa gaw <laughs> ma ne ko Ndongo dina defaat erreur non du ma defaat erreur mel noonu action sama père Ibrahima naa ne dugaat si loolu. am na ci lu ci am na ci lu ko métti trop. waa métti na ko métti na ko trop ba si kanam yàlla mais tamit jaam ak pexem yàlla ak dogalam amaana su ma nekkoon si moom mën na demee neneen mel na sant yàlla ba mu yàlla mujjee si ay loxom tey Ndongo mu ngi fii nekk fekk ay jeunes euh, Ndongo lan moo taxaw ci kanam fan yii maa ngi doon dégg sa combat ak Tigre combat yi fu mu toll. waaw Macky Tigre moom eh, benn promoteur moo ko tëggoon promoteur bi dama dégg ne daa voyagé woon mais kon Tigre la dëkk mais ba léegi gisuma bi dégguma ko xam nga am na nag ñu nekkoon CNG ñu woon waxal jot moon avance mais teg nañ sama loxo li nga xam tey ji genre garantie lay doon xam nga boobu léegi nag combat bi taxawoon na bañ fixé date bi le promoteur bi ñëwul woon xam nga ensuite si la balaa bi wàcc si réew mi te aj combat loolu la quoi. Euh, ndongo ginnaaw euh, yenn tolof tolof yi euh, ndongo des fois mu am ay problème surtout ci surtout ci entourage am tant que jeune loolu lan lay jouer ci yow mentalement. waa entourage moom xam nga entourage la du weesu entourage mais jamono ñu toll nii sant yàlla parce que xam nga ne boo xamatul foo jëm da nga dellu fa nga jóge woon. te am li nga xamante ji àdduna moo demee noonu bëñ ak làmmiñ ñu dëkk sax saa dañuy laale mais sant yàlla ba ma yàlla boole ku mel ni maam sa dafa may delloo si bu baax damay dem ba damay saalit toog naa fi ay weer entraîné wu ma moom fekk sama kër na ma jugul entraînement li warula la dafa am ñu lay bëggee ba léegi su mel ni moom maanaam may delloo si waat yu bëri sama père Ibrahima ak ñi nga xam ne tey jii laay nekk gudde bu ak subaa ngoon jigo new bi xam nga ko moom sama grand frère la ak ñi sama ginnaaw day yàlla ñu may encouragé bu baax a baax. champion yi nekk Grand Médine est-ce que tey ñu ngi leen jàppale ku ci mel ni ñoom Pape Mourlo euh, xamoon nañ ko tey mën nañu tey bu ñuy wax champion bu mag tey bu njëkk fël la tey Grand Médine euh, Pape Mourlo ngay wax wala xëy na ñoom Yékini junior est-ce que tey ñu ngi lay jàppale ca wàllu carrière taf la ci seen wet comme rak. waaw maa ngi nuyu mbër waa Grand Médine bu baax. mooy suñu mag ñëpp di nuyu Pape Moro bi nga xam ne su ma nijaay àqan la di ko nuyu baax ni ñu képp mbëri bu ñu yow grand ma lay nuyu. est-ce que li war ci yow ñu ngi ñu ngi koy def di la jàppale di la conseiller di dugal seen loxo saa amee ko. waaw lu ñu mën ci man ñu ngi koy def lu ñu ci man rek ñu ngi koy def amaan teraanga moom tuut mu néew mu bëri teraanga la du wees teraanga ñu mooy may defal. mais est-ce que taxawaay bi desul entre sa diggante ak ñoom. ñoom ñu may jàppale bu baax. donc est que da ngay rafetal rek. non xam nga àdduna lépp jamono tooy rafetal la mais lépp lay wax man dëggu ci man la ma duma caaxaan caaxaan baaxul loolu la quoi. mu ngi fii waaw. tey mën relation moo leen boole man am na lu ma jot a fekkee mais dafa mel ni euh, mère bu la jege la wala da nga da nga da nga da ci xolam parce que dañu mës tase man ak moom marché Grand Yoff ak yow. Munem amna ma am ay tolof tolof waye billahi wallahi tallahi man mako jur lepp lu mu bëgg dana ko am relation bu particulier yow ak bo jaay jaayee euh, maanaam boo da ngay da ngay yak émission bi ah. man témoin la quoi

maanaam yàlla baax na daal yàlla na yàlla xeb dolli incha allah. yàlla baax na yàlla na yàlla xeb dolli euh, bugg ñu woon mu demee noonu waaye mënul ñàkk aussi euh, tey euh, ndongo est-ce que tey doo taxawaat tuuti ci carrière nee nga sànq da nga bëgg bëre combat bu saf bu bëri coow man la d'accordu ma ci. lu ñor lu ñor esta bi lu gaa yi coow. ñun ay xale lañu nekk ci làmb ji amul lu 24 ans. kon tey lenn bu ñu teree dal nag dañuy gëm ni lii lu gën si ñun la nekkul passion destin la si ñun ndax bu nekkoon passion kon fu ñu dégg mbër yi fu ñu dégg mais destin la foo ñu jaar si te fii ku ne am na destin mu ñu xam mu ñu xamul mais sant yàlla man su ma demee ba mënatuma téye roi des damay bàyyi làmb en tant que man ci làmb damay gëm ba léegi mun naa koo téye te lu gëm lu ma gëm lu nekk ci man la. waxoon naa ko fi ay année dama koy waxaat tey ku dëggal ko nekk mu si ay tolof tolof si ay gàkk-gàkk laa nekk tolof tolof baaxul si ay gàkk laa nekk mais yàlla daj bunt tëj parenteer wàcce rido daan nga ma fekk mbappat naan ma grand tôt ou tard champion laay doon. waaw loolu ma la waxoon am na suñu foto boo xam ne sax muy gàlle ba léegi boobu jëf jël mën bëre grand combat bi ak yeneen loolu sant te gaal gi la woon sax loolu lu ma gëm la lu ma gëmoon la si man te ba léegi moo nekk fii grand musuma bëri ku ma doole baa ma ëpp doole dëgg naa si benn interview yi nga ne ndongo bëreegul dëgg la bëreegu ma benn komba laa bëggoon bari ba àdduna yëpp xam ne bari naa mais combat bu sax dafa bari mooy sa combat. sa combat bu dama bëggoon bëre ba àdduna bi xam ne maam loon gis si man du ko raw mu ci biir di di nelaw amaa ne bërekat moo ko yeewagul rek mais combat baax na. mais keroog laa la mës gis nga am lu la euh, fekke naa la nga bëre daan wala ñu daan la euh, gis naa mental de fer bi nga amoon mais keroog j'ai senti benn nongolo bu anéanti boo xam ni bëggatul dara dara dara tey ci àddina. dama am déception ci combat boobu. Bamba di ko nuyu au mu ngi France sama gaañ histoire bu muy def foofu yàlla ko yàlla jàppale mais combat dama tëdd bu guddi mu ñëwaat sama bopp ba ma teg sama poids du ko seranaat jour boobu la mu njëkk daan si làmb jël bu leer nañ ci arène jour boobu noonu ci classe bi. da nga da nga topp bëri ba mu sës. c'est que xam nga rek amaana kon lu kon kon kii wax maanaam ki xam ne nga bugg a lekk ak ki la bëgg nax eh, doon benn. Papa dama ko bëggoon lekk jour boobu wane ko li nga mën triple bi ma la ko dàq mais yàlla du farak kuy naawu moo tax. tey fi mu tey ndongo jàpp nga ni sa combat ak ban adversaire mooy mooy neex fi mu mooy neex amateur yi. maa nga jël teg ko si loxo père Birame Ndiaye ndax moom jamono ñu toll nii avant may nekk ci écurie am sax daf ma doon conseiller si luñ gisantewul boo déggee man dafa conseil suñu gisante wu damay toog damay damay toog si télé muy wax si man li nga xam ne mosuñu gisante te jege nañu moo tax olof Ndiaye nit ki dina jege loolu fekk sori na la mu sori loolu fekk jege na la Birame sama papa la sama maam la te bokk na si ñi nga xamante ji maanaam buñ tiree làmb rek foo ñu tudd ko si moo tax mais jamono toll nii lépp ci wàllu combat teg naa si loxoom ku mu ne kii la may la kii la.

Père Birahim su paree mu may dégg su paree rek pare naa. non dafa mel ni fii da nga mer quoi da mel ni ku yàkkamtiwaat bés yow. ah su ma merul sama supporter yi wax ak man su ma nee mer naa sax day mel ni comme si gëmma yàlla mais dafa am lu ma nekk sama xol bi moo war ko faj si biir làmb ji te dama koy faj incha allah. kon Ndongo ngi ñëw na gaa yi xaar. waaw du ma sax isbaak mhm. Ndongo mu ngi ñëwaat si làmb ji. xam si ma tur dafa jur si arène bi te ñëwaguma arène nga xale bu ndaw am 15 ans di bëre yaa ngi dégg bu ma ut licence dama yokk sama at du ma am licence gars yi dañuy xaar nangu mu ngi ñëw. nangu looy tëjee. waaw lu muy tëjee mooy di nuyu rek te di santate di nuyu ñi nga xam ni ñoo may jàppale guddi ak bëccëg suba ngoon père gi yàlla génneel ma lii may bëgg wax nii. parce que ku ne xam ne làmb métti na. danañ ko génne bu soobee yàlla. ak situation yi ma toll nii dafa métti euh, di sant ma ab sax suma kursu Père Birame Ndiaye Grand Zal di sax xam-xam bi yëpp su ma ne Père Birame Ndiaye Grand Zal lim naa sax xam-xam di nuyu Igri Sanjam bi yëpp du tàmbali ñu si kaw ba ñu si suuf di sant jigo sama doom ndey Souley Fara Mor Sadio Cokoli. di nuyu sama xarit doomu ndey bi xarañ kii awma fayam di nuyu waa Kër Massar di jël nuyoo bi takk si loxo laay càmm moom ba mu méttee bàyyiwul ba mu taree dawul taximaan la de mais wecc itam lay jël di ma jox naages nii maa si moom maa si moom ma koy bàyyi ak yàlla moom di gërëm Saliou 22 Saliou Mara Saliou Grand Médine Mafia ba baa nee 13 di nuyu Piol ba di nuyu Sen wa Grand F ñëpp di nuyu wa jeune 7B di nuyu Wutang di nuyu ñep di nuyu ñi nga xamanté ji grand jamono ñu toon dafa metti ci man ak jamono jëlé gisuma kenn. ak li fi a jaar yépp mu metti ñu la may di muñ. ay lay di muñ muy metti sama xol bi mais ma fa la jambar. jambar lu ne xewone fi nak lu ne jaara fi nak man nañu xamné ne Lo bo demb ak barki demb bu leg mo nek ni tok gaay bu ndu jaxlé wa 100 mètres amma sen fay di mooy sen jàppale ñom day dugg 100 mètres ñew bu ci man di jël néew bi tax si loxo Iba sama boy bu crime sama boy la mako yar depuis xalé ba légui te jël ñëw bi teg si loxoom. problème bu problème bu metti woon bu bu metti woon soit euh, pression bi ci sa côté aussi. naan dong loo ko jox bëgg naa naaw moo ko jam dong loolu àndaloon dong loolu lii amaana bu muy am maay nelaw. yaa ngi dégg di nuyu sama yaay di nuyuwaat sama yaay di nuyu sama soxna parce que jàppale ma si biir jàppale ma si biir di nuyu papa bu baax a baax baax a baax di kenn xam ne kenn la si man muy mëgëy café di bu baax a baax mëgëy café ama fayam. Ibu 22 maa ngi koy nuyu Bekkaay 22 maa ngi koy nuyu Bekkaay 18 maa ngi koy nuyu Djigo encore une fois maa ngi koy nuyuwaat père di nuyu sama mam mam góor gi jenn ba sa ties. Amana sax neno bari waru la mais nik xalé ak bëgg bëggum rek bako ci Yalla mëna ko su jappalé. yow di la sant di la gërëm ndax mosoo tay di wax ci man parce que da nga féké lépp da nga féké lépp bur. Amana ni am na am interview ma dégg ne ñuy wax si ndongo sax xamuñu ndongo dëgg la ni ma xamee war ko xamee ñu ma noonu mais sant yàlla yàlla na yàlla may wér ak guddi fan di nuyu sama maman moom amoo fayam xam nga wax ne seen sud bi xam bu dem ba nekk sud yi gën a mag xam nga bi nag moom seen salle la tey xam naa la mere sax mais mooy loolu mais am am am <laughs> tey xaw naa la mere mais am problème di nuyu maam sax di nuyu soxnaam xam di nuy képp ku ma jàppale daal. bu ama sa fay yàlla na yàlla fay incha allah bu neex yàlla jërëjëf. waaw aw ah, wax nag yombul bu jubee si yàlla la bu dëngee si man la lépp li ma wax li nga xamante ji jaarul yoon nag xam ne ci man la ba doomu aadama matul su mu limee du ma juum mais dama dul matal ndax nit matul maa ngi jégal ñëpp nag. jërëjëf mbokk yi gis ngeen mu ngi noonu. xale xale baa ngi noonu wax na dëgg xam naa ko man maa ko yar bi muy bëree di xale di ànd ak ñoom Mori Cargo di bëre ñoom Boy Saraxule ñoom Fourière ndeysaan ñoom Yatanza boobu ñoom ñu ngi uutu seeni mag ñu ci mel ni ñoom baa Mor Gaynde ñu ci mel ni ñoom ñoom Noiro ñoom L'Enfant ñu ci mel ni ñoom Pape Mourlo ñoom Yatanza di xale bu yàgg bëgg bëre waaye yàgg ko man Euh, euh, gis nga li fi jot a jaar euh, man bi mu amee dama ne man buur du ma man man du ma bokk ci ñu koy jëli parce que xam naa xale bi suivre naa ko jàppale naa ko gis naa ko mu bëre Ndongo Lo nag xale bu tuuti la gis première premier mu nga ko bëree le 13 janvier 2013 ci digganteeg bul comprendre nekkoon le 13 janvier 2013 xale bu tuuti la ci 11 combat rek la toll.

Eh, li fuy jot a am ci kaaw rakkam jooju ibba am tamit di ñaan yàlla tegg yàlla tegg tolof tolof yi parce que loolu lépp àddina la eh, ci ñaari ci ci ki tooñ ak ki ñu tooñ yëpp la méttee ci moom ndax ñoom ñaari yë ñëpp yemoon ci moom waaye mbokk yi li leen buur géwél indi loon eh, ci équipe bi àndoon ak Cheikh Omar Gueye jiite xale yi ak Ousmane Diouf ak Fatim Diop Dabax ñu ñëw fii tey ci Sano Fitness fekk fi Mapsa moom tamit di champion boo xamante ne que bi muy Euh, bi muy nekk écrit écrit face euh, sama kanam daanaka daanaa ko fi joxe avant sax ndeysaan euh, <laughs> moom tamit mu nekkoon champion nekk ndaanaan kon di nuyu staff bi ndongo àndal yëpp di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen numéro ak seen mbokk Bour Gueweul si Bour Gueweul cukkule war a ñëw. saa yoo cukkule. mais yow cukkule man maa ko tuddee Balla Gaye de. cukkule. wala cokkale. mais gannaaw luy cukkule. Sadio kaay nii Sadio kaay non kaay non mais attends loolu dafa war lan mooy cukkuli ndax cukkuli bi fi am Cheikh Omar man naa ko génne la Gaye maa ko tuddee alias cukkuli. moom lu bees la. waaw ah, cukkuli daal dañoo toog gàlle di waxtaan maa ngi nongoloo naa ma dama dégg quoi maam ma woon ay vidéo naa même bu saboot yi tëggul sax day bàqu si leen créé cukkuli quoi man. cukkuli wax ma cukkuli ma mais cukkuli mooy fecc bu bees la rek. boo bëggee léegi moo kii ko nongu jox ma ko ma xool nongu loo jox ko cukkul jox ma ko nongu jox ma cukkuli rëgër eh, gi rëg rëgër gi cukkuli nongu cukkuli gi rëg cukkuli eh, nongu cukkuli gis gi cukkuli <laughs> cukkuli daas wax gën re eh, cukkuli jóg <laughs>